émission Euhlou bi nag di émission bi nga xam ni moom la ñu faral di baaxoo di ko def ayu bu nekk di ci ànd ak waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ci seen site bu mag bi di El Média kon mbokk yi tey nag dañu am gan koo xam ni gan gu màgg la gan koo xam ni mën naa wax ni Sénégal euh, ba ci euh, diaspora bi maanaam ñëpp ràññee nañ ko di wuyoo Mouhamad Dioum Seydina Mouhamad Dioum di tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci waa kër sunu maam xaadim rasul euh, radiallahu anhu tey nag moom lañ seet si woon ñëw këram pour waxtaan ak moom ci li nga xam ni moom lay yëngatu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni seen émission ahlu ahlu nabi dafay wër kër diine yëpp nag bàyyiwul tijaan xaadir laayeen murit képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah seen émission ahlu nabi dina ñëw seet si la mo xam ngay jàngkat mo xam ngay oustaz wala ngay imam sax wala ngay ko xamni président daire nga ahlu nabi dana set insha allah rabbi tay nak ñu dalal gan gu mag kuñu wax mohammed djum bala may continuer damay bàyyi mohammed mom mu wax len mom moy kan def présentation bismillah mohammed السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوي النوال والي الحمد لله لما قد قدى وتر من بعد ما كنت زا فقر وذا ضرر سد لساني نوير جناني صفي الأماني وسد براي آه سنة عمر نيوغ لي زيارة ديلو زيارة بو باخ باخ باخ آه، ديلو سواتي واي باخ ومن محمد جم تقت يونت بصلى الله عليه وسلم bokk ci waa kër si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di tagg yonent bi ak li ko wër ak jàmbaaram ji Xaadim Rasul mi nga xam ni mooy sunu bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun daal ay taalibe leen yoo xam ni sunu lépp dañ koo jeexal ci tagg bi sallallahu alayhi wa sallam kay euh, dégg ngeen ko Mouhamad jum def ak présentation bu rafet boobu mu def euh, kon yéen ñi nga xam ni yéen a koy safoo euh, di ko bege mu nek sen soppe mohammed nyekodon ngi ni ñi ko don lacc mohammed djuma ngi ni tok sama wet kon wérenté mom euh, boy wérenté ba gis nga ngay wérentel ah da ngay mel Mouhamed Dioum mi ngi ni yeen ñi ko don lacc dal mohammed djum indil na len ko euh, mohammed djum bu sam-sam dekk sam-sam djum euh kañ nga juddu waaw man day sama at 1987 la mhm. ci la gane aduna ci nga gane aduna fan nga gane aduna waaw yàlla mi ngi doogal ma gënee àdduna ginnaaw raay ñu koy wax Farba. ba laa gënee àdduna ci yëmbal. dégg ngeen Mouhamad Dioum nekk ndaw nekk koo xam ni mu ngi toll ci digg àddunaam wala ci buntu àddunaam waaye dëgg dëgmal li nga xam ni moom mooy diinal islaam kon loolu dafay jàngale ni maam nekk ndaw taxul wala teewul nga bañ a topp sa boroom teewul nga bañ a euh, liggéeyal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad jum na ko wax tagg yonent bi sallallahu alayhi wa balaa ñëw dugg yow ci émission bi dëgg-dëgg nag dañ lay bàyyi yow ak sa groupe bii nga da am loolu nuyoo ndax saxaar nag bu jubee gaar faaw mu corné ba ñëpp xam ni mi ngi ñëw فخر وسعد closer. Uh, macha allah macha allah xayril bariyati kooku mooy ngën gi mbindeef di sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad Dioum dégg ngeen xasida bi mu leen andil yaakaar naa dégg ngeen ci way wi mu ni Cheikh Bamba nee na kon way wi mën nañu wax ni Serigne Touba Mbacke moom moo ko bind wax ni alhamdulillahi lamma qad qada watari min baadi ma kuntu za faqrin wa za darari Mouhamad Dioum way ba ma ko doon tënkal rek bayit boobu rek li nga commencé alhamdulillahi آه، لما قد كنت ذا آه، وطري آه، من بعد ما كنت ذا فقر وذا ضرري نخ دفا ام لو خامني ماك ني دنج كو بيندي تا ماك ني بني بيندي سين واي دفا ام نوت يي نكوي بيندي دفا ام تيرم يي نكوي بيندي دفا ام مانام ساوخ بوني ام تي نبي صلى الله عليه وسلم نخ بو خولي واي وي داغي خامني كيكو بيند امنا ساوخ موي تيوفيل بو ام تي نبي صلى الله عليه وسلم بو دون تنك واي وي اك نينكو ييغي ak daj bi man daj mom gëna yëm ndax yaakaar naa lii mu lu bees ndax ma koy doog a euh, way wi lan mo la inspirer ba nga way ko waaw jeuf serigne Omar yow waxtaan yow dina ma neex ndax yow da ngay ko xamni li ñuy def da nga xam nin ko xamé nga ko xamé ndax ñun ak yow ñoo bokk li ñuy yëngu muy tàggante bi sallallahu alayhi wasallam sa lepp mom la waaw xasida gi serigne Touba mi ngi ko tuddé tahmis Ah, fi fi taxmisi astaghfirullah ah, turu xasida gi mi ngi tuddu tufatul awa fi taxmisi astaghfirullah nga xamni ni do ko def tawasul di ci ñaan suñu borom ay njéggal ak njéggal nga xamni ni awa fi taxmisi astaghfirullah ndax bo duggé ba ci biir ya ngi deg mën a astaghfirullah jalalaaw razikhuna astaghfirullah astaghfirullah jallaahu xaaliqu naa day jéggulu yàlla ci turam yi turam mu ne mu jaar fa jéggulu ci borom ngir ñu a tax mu bind xasida googu ngir sunu borom jéggal nu bàkkaar yi air bi it kazalika yàlla dogal man maa ko fent di ko jàng ndax mën naa ni biñ koo fenteek léegi sax yàggut lool lool lool euh, yàlla dogal euh, xanaa euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci rek ndax boo koy tagg rek moom mooy mooy dundal sa xel ba saa su ne rek Euh, lépp lay def dañ dañ ciy gis avancement ndax yonent bi sallallahu moom mooy avancement rek yonent bi mooy avancement waaw ah, waaw mi ngi noonu euh, ba tey dañuy taxawaat ci xasida bi nga xam ni moom dégg ngeen ni mu ko waxee nee na euh, mi ngi ko tuddee tuxfatul awaa fi tax miisi astaghfirullah dañuy taxaw ci bayit bi nga xam ne moom la tijjee mooy alhamdulilahi lama qad qada watari sunu maam borom Touba di wax maanaam dafa mel ni li ñu li ñu dajale ñun muy tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, mam borom Tuubaa da ko tënk ci way wi ndax yow aajo yi ngay am yang koy yene ci way yi ndax aajo yi ngay am di yene ci way yi tamit ndax mi ngi faju ci xasida yi jërëjëf serigne Omar jërëjëf Sam li nga ma laaj amna solo lol waaw xasida yi nak serigne touba moko bind wax ni karama xattu yeddi sama karama moy sama bindum loxo du julli gi ma julli ci géej gi ndax loolu ndigalal yàlla la ma war koo def mbooleem liñ boole boole giñ ko boole gaynde géej sëñ tubaa nee na leen doonu ci karaamam sëriñ dani karaamatu xattu yaddi sama karaamam mooy xalima gi ma daan jël ci capp ci daaji di di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy sama karaama kon kon karaama ak sëriñ tubaa li tuddee karaama yow loola boo ci nekkee rek defe naa ni ah loolu ah rek na doy na ak tawféex xas yi daal ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax ndax yàlla dogal na ni ñu ngi ci bëgg a yàgg euh, teraanga bu nekk it nag wax dëgg yàlla am nañ ko ci euh, teraangay xasida nag damay faral di wax ne oto ak ay kër moo ci gën a tuuti ndax teraanga gi leneen la sa digganteeg sa borom la euh, ngay jàng xasida yi di dund dund bu neex li sëñ di wax ni wa humurihi ilal jinaani aidu nee na am na ñoo xam seen dund aljana la ba ba ba ëllëg yomal xiyam ci aljana la ñuy dund waaw defe naa ne loolu nag mooy teraanga teraanga googi nag mas nañ ko bu dee mbiru àdduna yi tamit ah mas nañ ci ñu ngi ciy mas bokk murit yi lan motax ñom ñu fonk khasida dama koy loolu dama koy laaj lu bari bari lan motax tax may gis murit juki gis rek jankat murit bo gis mu ngi yor ben jukki khasida foo mu dem euh, da ngay dem bam yagg sax ñom ñu ni khasida bi man lañ ko tuddee kii tuddee boppam jas bu euh, sëñ sëñ sam jazbu ki tuddé kii fallu sëñ euh, lan mo waral loolu ak lan motax ñu jël khasida yi di ko sen bop ak yow it ban khasida nga dëppe sa bop lolu sawar warna ci waaw suñu war xaside yi euh, serigne touba mom mi ko bind sa xaside yi da ko doon daaneel mom serigne touba dégg na mas naa toog am ku di tag yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbindam mi nenañ serigne da jek jek rek ubi buntu bi daan na kan ma wax lu melni ak kan lañ wax lu melni ñu ko mbàkke li de ya ko bind mu tejaat buntam fatu kon koku xasida do na ko yu beneen àll boo gisee nag ñuy diw diw euh, diw bisiri diw gis bul xulub li ko waral suñu war moo di tey jii ki nga xam ne ab rapport la buy dox du du duñ jaar ci turam danaan ko rapport baa ngi ne dem ab fecckat tey bu rombee danaan kii ab fecckat la ab ministre it kazaalika bu nekkee ci koñ bi di liggéey bu ñu rombee danaan xoolal ministre bi la ñuy wax li lan ma ko waral dañoo daa taqoog loola nit nag li nga taqool moom lan lay woowee waaw xaside yi nag sëñ bi da cee def pajug aajo pajug aajo weesuur nag dafon ak jalbu ndax dalay dakal ak lor di la xëccal ak njariñ ah, serigne touba du ko def ci xasaay tamé xaside nak serigne bi moko fonkolon bopam dégg serigne masamba mi nga xamni mok moog serigne touba ñoo bokk ben bay muy ben wajuru gor nga xamni moy mooy mamor antassali dégg na mas nañuy kural di yëk ci yi am kuy wax ci bir wax jo xam da wuté ak lañuy jang dégg na ah, serigne touba fétasu len ba leen fi fi ban jàng ba noppi mu ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ko bàyyi leen ñu tagg ñu yëkkati sama xaside yi ngeen ci dugal benn wax bu ci bokkut ndax képp koo xam ni ngi yëkkati xaside yi nga ciy dugal wax bu ci bokkut ëllëg yu ma xiyam ne lu dugal sawara te man sëriñ bi du ma ci wax dara waaw ñu ngi koy tub baax a baax a baax am na solo macha allah leeral yi am na solo tey tamit ko dégg wax gi xam ni li muy wax xam na ko lii dafay wane ni maam lépp lu waay di wuyoo rek doo ko war a nduroo ndax am na ñoo xam ni ñi ngi ci leneen loolu di leen bégal ñu ciy def ay gëstu nag di ci def ay recherche yu xóot kon nit ki lépp lu mu nekk rek moo xam euh, ak lu mën doon rek war nga ci gëstu rawatina nag xasida yi nga xam ni moom la ñuy jàng wax nga ko sànq euh, léegi rek ku nekk la nga nekk la ci war a xam ni kii ci lii la nekk euh, jàngkat bi war a xam ni kii jàngkat la ndax comme nga wax nga sànq ni nga tudd tur ni wax diw dañ koy woowee nangam woo nangam kon loolu tax xasida yi mu yi ku ku nekk sasoo benn xasida di wax ni man maay xasida sàngam loolu rek day wane cofeel gi ñu am ci yonent bi ak cofeel gi ñu am ci seen maam borom Touba. Euh, Mouhamad ba tey yow dangay ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kañ nga commencé tagg yonent bi. waaw Seydina Omar tagg yonent bi sallallahu mën naa ne biñ ciy dugg war fukki at la war a am. ci li ma jàpp ci li ma jàpp. ndax yàlla daa dogal bi ma amee juróom-ñaari at la sama waajur dugal may jàng alxuraan soxna Zeynab lu ñu bari xam nañ ko defe naa ni moom ma jàngal ba ma xaajal kaamil bi yàlla dogalee sama waajur jëlee ma fi yóbbu ma Touba may jàng alxuraan defe naa ni bi may yóbbu tubaab boobu euh, defe naa ni at yi néewoon na loolu it kazalika yàlla dogal sëriñ bi ma doon jàngal alxuraan moom laa daan àndal di tagg yonent bi sallallahu alayhi ñu bari dañoo réeré jàpp ni Mouhamed Dioum Dakar la tàmbalee tàggant bi de Touba laa ko tàmbalee ñi may diglu xam nañ ci dara ñu koy wax Serigne Modou Mbeng nga xam ni moom daara sëñ soxoy bu Mbàkke la jàngee moom sëñ Touba man moma ma jàngal Alxuraan ba pare di yëkkati xas yi damay topp ci di ko aw bobu li may wax yàgg na ndax defe naa ni boobu jànkat yi bëri ñi ñuy dégg fi ne boobu sen sen tur agu fii waaw ñu ngi koy tub bu baax a baax Touba daal lañ tàmbaleem jàng euh, solo ndax euh, talabul ilmi min al mahdi ila al lahdi Niki ki li nga nek li nga xamni mom nga bëgg ba nga ndaw nga koy commencer di ko di ci nek té boy sakku xam-xam dang koy ut bi nga nekkee ndaw waye diko ko ba kérok ñu lay sul ci bàmmeel te tag yoonu sallallahu alayhi wasallam sakku xam-xam gën ko reuy jaamu yalla gën ko reuy yaakaar naa ñu ngi may signalé ni sama heure mi ngi wajal jeex waye bala ma jeexal dama lay laaj mohammed ndax ci tag yoonu bi rek la yam wala yemul ci tag yoonu ban lan moy métier Ah, tamit li ma laaj amna solo lol ndax yalla dogal na ni man ci xasida lay liggey ñaar yoon ndax ci ci mbaxu yalla yalla da dogal may tag yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaaral bi may liggeyat ci ci mbind ci mbind mi muy xasida yalla dogal ci walu mool xasida lay yëngu ci walu imprimeur ci walu téré téré yu demeen téré yëpp rek waye eh, mu ëpp tamit ci téré mag ñi ci la ëpp lu may faral di yëngu di def ay walu dollu xasaay di ak walu imprimeur dal ci walu xasaay di sama liggey macha allah kon loolu dégg nga kon bëgg bi nag euh, gën na feeñ lii métier mooy wàllu mool téere te ku ne xam ne ni mool téere maanaam day yokk xam doomu aadama yi ndax téere yi bu ñu ko mool woon ndax bu njëkk mag ñi lañ daan uti téere jóge Sénégal dem ba Mauritanie jóge Sénégal dem ba Conakry di wër dëkk yi ngir àbbi téere wala ñu dem toog bind téere ba mu jeex ñibbisiwaat kon bu ñuy mool téere di ko jaay loolu dafay tasaare bind mag ñi dafay tasaare xam-xam Mouhamed macha allah am nañ contentement bu baax a baax a baax ci invité bi ñu la dalal euh, dalal bi ñu la dalal ci jotaay bii di Euhlou Nabi waaye nag euh, balaa may tàggatoo ak yow groupe bi nan la tudd groupe bi. waaw groupe bi mën na ni groupe sopp xaadim rasul la rek ndax ñoom ñi samay rakk lan yàlla dogal ñu bokk li ñuy yëngu muy tag yonte bi sallallahu ci biir ànd gi ñi ànd ñoom ñi kenn ku ci nekk am na ko muy roy waaye yàlla daa dogal ñu doon suñuy rakk ba pare doon ñu baax doon ñi nga xam ne dañoo jël seen lépp rek di ànd ak ñun bu ñu amee programme ñu bàyyi seen lépp ñëw ànd ak ñun li ko waral mooy seen mag laa yàlla dogalit mën na ni rek groupe sopp xaadim rasul la rek waaw mi ngi na tubaarkàlla euh, am na solo kon mbokk yi seen mbokku Omar Samb euh, almadih moo ñëwoon tey jii ci seen émission bu mag bi di Euhlou Nabi Euhlou Nabi nag comme ni ko waxee sànq bi may commencé euh, bàyyiwul kenn bàyyiwul tijaan bàyyiwul xaadir bàyyiwul layen dañoo ñëwoon ngir xam kan mooy Mouhamed Dioum dégg ngeen Mouhamed jum fi mu commencé ba fa mu jeexale ci juddoom ci njàngam ci métier waaye tamit ak tag gi mu tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayale ko ci mbindu maam borom Touba. kon mbokki yi ñu ngi leen jaajëfal yéen ñëpp nag di wax ni eh, seen site boobu di El Vision képp koo xam ni rek eh, yaa ngi ñuy suivre ñu ngi lay sant ndax soppe yi bari nañ am di jàmb yu bari nañ. di sant mboolem koo xam ne yaa ngi doon suivre Elvision Média di wax ni rek gaaw leen gaaw ngeen abonné nag euh, ci Elvision Média ndax émission yi bees dàq la indil may wax ni mooy site set site boo xam ni mooy site boo xam ni moom rek ngay dem fekk mu am programme kon programme bi yàlla yàlla taxawal ko liggéey bi rafet na ñu ngi àndoon nag suñu caméraman euh, soxna euh, Serigne saaliw di nga xam ni moom mooy seen sëriñ sëriñ Saleh Mbacke euh, ak suñu assistante di soxna Salamoroon nuyu ñëpp nag nuy suñu directeur euh, alxaaji Lo ziar leen bu baax a baax a baax euh, di wax ni rek maa ngi leen di joxaat dig daje incha allahu rabbi beneen émission ci beneen ndaanaan ci beneen këru diine incha allah waaye balaa may tëj nag Mouhamad daf ñuy tëjalaat ci tagg yonent bi salaa sallam mu tàggatoo ko ak yéen bismillah Mouhamad. waaji Muusa bul fàtte waaji fi fi Tuuba fi faatu moo la yàlla ay sa waaji Muusa bul fàtte waaji fi Tuuba moo la te faatu moo la te yàlla yàlla waaji fi Tuuba Ahmadul Xadim faatu moo la te walla ay sangala bul faate Seexu Bamba ci dunya bu la fàddoo santalam santaani Bamba ci dunya Ahmadul Xadim Alla ay sa naka sa xol ni jàkk ndem raw na say ba mi ngi lay ji yéen daw leen seetaane yaa raw na say bat raw na say jot mi ngi lay gis daw leen Balla ay sa donu nga ay mboot ci gaa yu baax yi fi nekk yaa ay seen Ahmadul Tijaan fi nekkoon. yaa yi fi nekkoon. kon nooy. Ahmadu Tijaan. ala ay Salaati Maalik. ci saafi yu diyu ànd ak. boobu luy xaw suuf. ci seen sultaani. di Maalik. diyu àndal. boobu luy xaw suuf. xaw suuf yaa di seen. yaa di seen sultaan. pala tal mooy xutbu fi diwaare macha allah doyaluñu waaye nag euh, lu neex du doy dañ koy dog ba beneen yoon ah. macha allah way wi neex na te yaakaar naa kenn doyalu fi waaye nag euh, émission bi dafa am heure bu ñu ko tënk moo tax ñu ngi jaajëfal sa awkat yi macha allah ndax man damay wax ni man jàngkat neexu ma mais awkat moom neex ndax bu du woon a aw jàng du neex kon ñu ngi leen jaajeufal ñom euh, Cheikh mbay Serigne Mor Serigne euh, Cheikh mbake raiya Serigne Demba ak Serigne Jiri Diop khassida jaajeufal leen bu baakha baax di leen wax ni a émission baa ni di ëhlu nabi fi ci elvision media gaaw leen gaaw ngeen dem ci seen site elvision Vision Média ngeen def www.elvisionmedia.com euh, gaaw leen ngeen dem télécharger suñu application bobu nga xam di nga mëna a émission bo xamni dawal nañ ko incha allah rabbi di nuy soxna yi tedd yi bax yi téwon émission bi ak wa kër gi ñëpp macha allah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh